ah gis ngeen ne la xew démb ca tribunal bu ndakaaru ban jàngat ngeen ci def li le moo sookee waxtaan yi mbokk yi ku ci bëgg a àddu da ngay def 77 810 90 90 salaamaaleykum sëñ bi fa ñuy woowee fan ci Dakar sëñ bi su nekkee da ngay dégloo casque wala ay airport dañ la ñaan nga tekk ko ngir dégg-dégg bi gën a yemb dindi naa ko waa Dakaru Njaay sant yàlla bu baax a man daal yaakaar naa ne projet bi moom la mu doon wax na la yaakaar naa xale bu jigéen ne dañ maa sàkku ba yóbbu ko si ba médecin bi wax ne mhm. mu gën a demee parce que yow nag ngay dama leen maanaam témoin yëpp juróomi témoin bu dañ ci gën a dugal mhm. ah, man damaa yaakaar ñi gàcce du leen di quoi maanaam am la fa doon wuti wuñ parce que moo wax ne dafa ko sàkku ñun loolu la ñuy wax ko mhm. dëpp na ko indi ñuy uh-huh. woote naan soo uh-huh. ko la fu doon loolu waaw dañ bàyyi bu jigéen fi doon liggéey mu patron ñëw na setal Sonko uh-huh. ok yaa xam naa du bi dañ ko waroon sànni xale bi dafa waroon indi bërëb wala duñ ko bàyyi démb bërëb la di kon mën da wax rek kontaan ni Sénégal dañ ko koy àtte yàlla moo am te ci yow yi maanaam sàkku jigéen dafa war a am quatre personnes yoo xam bokk fi ñu jógee mhm. quatre xam nga ne loolu yomb yàlla moo ñu gën a bëri sutura nañ suturaam te ngir yàlla da bàyyi kii affaire de politique yi politique affaire dañuy mhm. dimbale waaye yàlla dañoo war a liggéey liggéey dañ bàyyi affaire yi caaxaan yi jërëjëf mhm. d'accord merci merci merci merci beaucoup merci di la jaajëfal di jaajëfal itam euh, Serigne Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar fay Faye fàttewuma la le patriote ñoo bañ nuur euh, commentaire yi am na solo Amadou Bamba Demba Demba Daaba euh, Ngenaar Ndiaye Dame Diagne daam ñun ñëpp maa ngi leen jaajëfal ñeneen ci des naa ñëw ci seen commentaire laata su ma jël ki nga xamante ne mooy woote jamono ji salaamaaleykum. Aliou ça va bien. sëñ na ngeen def. waaw ah, ñu bu baax. jaajëfal ñuy woowee. waaw maa ngi lay woowee Golf Foire. Ouest Foire. ah Golf Golf Sud. ah Golf Sud wa euh, ca kii nii ca Géejawaay. maanaam bëggoon na jox sama xalaat rek li nga xam ne moom la ñu. ay ca mu commencé ci président mhm. ndax moom moo taxaw fii ñëpp di ko dégg mun am na décision yoo xam su ma état rek man maa man xaw euh, ma ministre de l'intérieur dina ko wax ministre de la justice ministre de la moom. Mhm. yaa ngi dégg sànq dëkk yi mën naa taal réew mi quoi kon lii waroon na cee a jël responsabilité mhm. te moom taxaw na fii ne maa yorom nekk ci ne Macky Sall moo ci biir quoi dañoo wax ci dëgg rek man ma ci gën a métti mooy comme ça ku mel ni def liggéey bu am solo xale bu ndaw léegi Adji Sarr moo tax mu yàq liggéeyam quoi Adji Sarr moo moo tax mu ñàkk liggéeyam mhm. dangay xool ni ci ñàkk seen bakkan mais Adji Sarr fekkoon nañu ko wax bi nga xamante ne moom rek benn Sénégalais quoi Mhm. tàggatuma ba nga xamee ne tey maanaam amul benn turam. may xam ne ànd ak doxam boobu nga xam ne tekkiwul dara Sénégal. man loolu dafa ma métti quoi am na ñoo xam ne fii Sénégal dañu leen a war a dajale bii laay walaay ngeen baal ma ndox leen ndox koy métti barke Sëñ Bamba dañu ñoo yàpp quoi. Mhm. dañu ñoo yàpp dañu ñoo yàpp barke Sëñ Saalum Ahmed. El Hadj Diouf fu ne taxaw na fa yor nañ ay preuve dem démb gën amul sax lañ seen taxaw kii maa ngi gis leen benn dikk benn bokk yaakaar bu jubadi taxaw na maître El Hadj Diouf bu góor na génne vidéo yi insister bi ko ñaan. dafa hmm. xool affaire wayet yooyu yëpp tampale yooyu noonu ñoom pour ñoom ñoo ñu a yeewu quoi. man xamul sax waa affaire jubali ñoom sax suur ci ak jógut la ñuy xëy ci gon dañ bàyyi seen rek a xam na nga sama. ñoom instant yi ñun instant yi yàlla rek xam ne dëgg la mais en tout cas dossier bi ñun attan nañ suñu bopp ñun Sénégal yi xam nañ fan la dëgg féetee nañu dëgg mhm. ñu fi amoon benn vidéo ci Ousmane Sonko billahi wallahi ba ñu publié nañ ko kon élection locale élection de titulaire yëpp fi jaar mhm. ay fen lañuy seen lañuy xëy di ci gont billahi mhm. mosu ñoo dox ci ak jubali mosu ñoo dox ci lu jub dañuy xëy di ci gont dañ waxante dëgg quoi ñu dañoo yor Sénégalais mais ñu lu ñu jo lu mu joxe loo xam ne lu lu ante dëgg la ñoom dañ ko ëgg mhm. jàkkaarloo ah déet waay sëñ bi ah, tamit ah merci merci di ko di ko jaajëfal waaye tamit di ko ñaan vraiment aussi comme ni ma koy waxee rek a chaque fois vraiment suñu wooteel kàddu yi yëkkati nañ ko gën woddu rek ndax ah, ñuy fàtte na ñëpp ñuy seetaan vraiment bokkuñu fu ñu di jugee ak ku ci nekk ak ni nga xamante ne noonu ngay xalaatee may jaajëfal bu baax a baax euh, Souleymane Faye euh, Ngenaar Diagne euh, Ngenaar Ndiaye Diagne Dame Souleymane Faye waaw commentaire